ok jërëjëf damay tàmbalee ci laaj bu njëkk bi. Mhm. mooy jigéen ñi. Mhm. am na ñaari barab yu ñu leen waajal. Ah, benn bi. mu mhm. ngi jëm ci waajal xéewal yi. ci waajal xéewal yi. waaw muy ah. ndax ndax ndax wàññi. ak ñi mu séddalikoo. xam naa dinañ ci ñëw ci kanam ci ak yaatal. waaye itam dañoo bokk ci njàng mi. Ah. bokk ci durus bi. loolu itam dégg ngeen keroog bi ñuy woote bis bi. Serigne Abdoul Ahad Bousso. ci turu daayira Muxaddamatul Xidma mhm. ñu ci ziyaare bu baax sëñ Afe mhm. ñoom itam ñi ngi ci waajtaay wu am solo mhm. ndax liggéey bi ci biir jumaa ji la ci lay tàmbalee ba yegg ci leen penc yëpp kon ñoom am na barab boo xam ne ci biir jumaa ji dañu ko beral soxna yi ngir képp koo xam ne jigéen la ñëw fas yéene bokk ci liggéey boobu am na foo xamante ne fa la ñuy jaar d'accord am na barab boo xamante moo leen beral Euh, am na yokk boo xam ne sax ci ci ci ci jumaa ji mhm. ñoom ñoo ko féetewoo mhm. dafa jullee ajjuma mhm. ak la nga xamante ni moo cay topp te ñu dolli ko ci ay baas kon ñi nga xamante ni ñëw nañu ñu xam loolu yeneen barab yi nga xamante ni itam ci ay pénc la moo xam daarul minam wala péncum suñu coye bu wala daarul xudduus ba ci yeneen pénc yu mag yi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi ku ne xam na ni fas nañu fa yéene dundal ndigal li ni ko Cheikh Mourou Mountakha digle foofu itam ku fa dem dina fa fekk barab bu ñu beral góor ñi mhm. ak jigéen ñi mhm. ndax sëñ Tuubaa ku ne xam na ni dafa mës bañ mhm. ab jaxasoo diggante góor ak jigéen d'accord loolu day fekk sellal gi Cheikh Mamadou Fadal doon wax ndax sëñ Mbay Jaxate danaan euh, wurus lu lu sellul bokk ci dëgg la xaalis lu weexul bokk ci bàmba lu baaxul bokk ci <laughs> kon sëñ Tuubaa moom <laughs> li mu bëgg mooy lépp loo xamante ni mooy tax euh, mbir mi am solo bu dee nag ci wàllu waajtaay bi Euh, fi may tàmbalee mooy. Mhm. Euh, ni ko murit yi jëlee. Mhm. ndax tey. Mhm. yaakaar naa euh, numéro bii sax ñu indi. te nga te nga te nga wax ko sànq. muy jees 144 jees xam naa du ñàkk dinañ ko affiché. ñu gis ko. li ko indi mooy woye falal. ñi nga xamante ni ñoom day mel ni. seen téléphone moom liggéeyatul lu dul fu fu ma koy dugal. ndax nangam la wala nangam. Ah, waaye loolu itam. mu am leneen lu am solo mooy dañoo gis ne ndigal li bi mu mhm. jibee mhm. Cheikh Maodo Mountakha moom moo ci tàmbali wane mhm. yoon ndax moom bi mu dooree rek li moom arafu Tuubaa la tàmbalee ci ay nag teg ca ceeb teg teg ca yeneen yu takku sëñ Yuusu mi nga xamante ni mooy jëwriñ daara Hizbut Tarqiyyah te ndigal li wàcc ci moom moo ñaan sëriñ bi ngir ñu mën cee barkeelu day mel ni barkeelu googu nag dugal na bokki taalibe bi. waaw ci lu wér. ndax keroog bi ñu teewee fii. <laughs> ci woote bi rek. Uh-huh. sëñ Amsatu. Uh-huh. moom Cheikh Souhaïbou Mbacké ñu koy sant bu baax. Uh-huh. te di ko ziar. gis na fi mu ne nii amatul jënd yitte. wallaahi wallaahi ko xam. Ah, mbaa koy jaxasoo moom. xam na ni kàddoom mooy. nañ ko fa séenee defee ba sëñ bi li mu bëgg mu am dëgg la ci lu wér moom it ci saa si la tudd ab lim bu takku ci ay nag ak ceeb ak ak kafe ak leneen d'accord loolu nag ubbi bunt boo xamante ni jëm na ci loolu kon day mel Euh, murid yi ngi ci yëngu bu baax. Mhm. loolu sax moo waral. Mhm. li ma doon wax ci wàllu cuisine bi. ndax euh, am na kuréel yoo xamante ni ñoom. jóg nañu di seeti barab yi nga xamante ne war nañ fa mën a def ay waañ. Mhm. ndax sëñ bi nee loolu euh, fa mu jëm. ay téeméeri téeméeri téeméeri nag sax. waaw waaw du ci doy. kon looloo waral benn waañ mënu ko togg. muy isbu tarxiya moo xam ci tubaa Belel la yoon Belel wala Daaru Xudduus mhm. wala fu mel ni euh, xayra mhm. fu mel ni euh, aliye mhm. ak yu ni mel yaakaar naa sax incha allah ci jataay yi di ñëw dinañu dalal kenn ci waa cuisine mu wax waañ yëpp fu ñu nekk ak waañ wu ne ñan lañ fa affecté dëgg la waaye ñu xam ne fi mu ne nii mu ngi bëgg a jege ñaar fukk ci dëkk bi ak li ko wër kon loolu moom maanaam ma ngay dox euh, leneen li nga xamante ne moo ci aju foofu rek mooy ñu gis na itam ñañ koy liggéeyloo yombalal nañ ñu ko ndax am na ci ñoo xamante ne nee nañu euh, cin yi ñoo koy joxe mm-hmm. am na ñoo xamante ni ñoo joxe seen ndab am na mm-hmm. sax ay daayira yoo xamante ni mm-hmm. ak fédération yoo xam ne dañuy jóge fu mel ni Tëngéej wala Thiès wala feneen dañuy fas yéene ñëw toggal seen bopp ëndaale mbooleen seen jumtuwaayu waañ d'accord ànd ak seen i soxna ak góor ñi nga xam ne ñooy taxaw loolu kon loolu moom mi ngi dox xam naa ne bu ñu jataayoo waatee ba dalal waa waa waa waañ wi dinañu leeral loolu waaw incha allah beneen bi ci des tam Euh, jëm ci euh, li nga xamante ni. Mhm. mooy aménagement yi. Mhm. aménagement bu ñu ko tuddee mooy mhm. bâche yi. d'accord ndax kon gis na ni sëriñ bi ndigal li nee na juróom-ñaari waxtu ci suba. na tàmbali ba juróomi waxtu ci ngoon. kon muy fukki waxtu boo ko xaymaa. loolu nag dina fekk maanaam bu jant di fenk. ba keroog muy sox. dëgg la bu takku looloo waral mbaar yi nga xamante ni. ñi ngi koy def mhm. tàmbalee ko ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Fadal mhm. fépp foo xamante ni pénc la fu mu ne sa yuus moom itteem mhm. mooy foofa am ker dëgg la ba nit ñi mën faa toog loolu na gis nañ ci ñoo xam ne bu ñu xamee ne buntub liggéeyal sëñ Tuubaa bu ubbiku na dañ ciy daal di tàmbalee tàbbi am na ñoo xamante ni tàmbalee nañoo joxe ay mbaar am na ñoo xamante ni tàmbalee nañoo joxe ay baas ak ñu tàmbalee joxe ay tànt ñu wax ne lim sàngam loolu bokkul ak lim yu takku yi nga xamante ni dinañ ko wut dolli ko ci kon loolee moom ma ngay dox mu des sax kër yi nga xamante ni ak pénc yi mhm. fenn fu ci ne ñafa ñoom itam mhm. lu mel noonu def nañ ko mu des tamit euh, wàllu euh, addi yi ñuy indi kon ku tudd euh, waañ mhm. dina xam ne day soxla woo mat kon ñi nga xamante ni tey jii am nañu ci mat ay pexe wala ay camion wala lim boo xamante ni mën nañu koy jënd ñu xam ne danañ ko soxla dëgg la dëgg la danañ soxla itam mhm. ay ay bâche yoo xamante ni mhm. dana keral ñooñu mhm. ay basang itam dinañ ci soxla lim yu takku dëgg la loolu am na ñu ci tàmbalee feeñal seen yéene loolu nag li tax ñu koy leeral mooy da ngay gis ñoo xam ne bu ñu ñëwee dañu naan ci gan fànn laa ci mën a jàppee ngir xam fonkeel gi Cheikh Mouhamadou Mountakha fonk ndigal dëgg la ak itti jum ci am loolu moo waral euh, intendance yi mhm. ak wàllu euh, mbir yi mhm. ñu defee ko noonu mhm. di nga gis ñoo xam ne sax la ñuy joxe xam nañ ne mënee su ko indi léegi jëfandikoo ko léegi ndax day loo xam ne dañuy bëgg bu ñëwee ñu mën ko jëfandikoo waaye laa denc bu du mën a yàgg waaye dinañu jéglu ñu xam ko xam barab sàngam la nekk bu dee lu ñu war a seral la bu dee lu ñu war a def feneen ngir bu ñu tolloo ci bis a xam fu ko jërëjëf sëñ Lamine leeral yi am na solo loolu daañu ci dellu siwaat ci kanam. Euh, euh, te may daaneel balaa balaa balaa may joxe. waaw waaw waaw mu gaaw ndax wax mooy li nga fàttali sànq ci sëñ mm-hmm. Youssou. waaw muy lu am solo. Mm-hmm. ndax wax na ni. Mm-hmm. Euh, moom yablewul fenn. ci aw turam. ne sëñ Youssou moom a yabal. ngir ñu joxe nangam. amul itam ñoo xamante ni. yebal na leen fenn ñu mhm. joxe loolu numéro yi tax ñu mhm. joxe ko mhm. ak code bi nga joxe loolu ngir mooy ñu xam ne bëgg nañu ñi koy joxe ginnaaw sëñ Tuubaa rek tax ñu koy joxe mu ñoŋ ñu sàmmal leen ko ba mu àgg fa nga xamante ni mm. fa la jëm loolu nag mooy mooy barab yooyu mu wax ak euh, suñu am satu moom ku ne xam na ni mm-hmm. ba ñu tàmbali dafa wane yoon woo xamante ne xam nañ ne mm-hmm. lu ko waay joxit mm-hmm. ci liggéey boobu rek la jëm ndax amatul yitte jeneen dëgg la mu nga jërëjëf sëñ sañ sañ sëñ Mamadou Lamine euh, leer yu am solo nga doon joxe noonu euh, ndax